ak gañu doon dund loolu di xibaar boo xam ne moom mi mu ngi ko daal di xamle ci réseau social bi di X xam ci Twitter bokk na ca la mu bind tamit ca message bu mel moo di ne nag li nga xam ne moo di respect moom du sax lu ñuy wër di yalwaan Sénégal nag wuutee na ak Sénégal ba nu xamoon avant ñu yegg ci 24 mars atum 2024 muy déclaration boo xam ne rek kon mënees nañu jàpp ne moom mi ne daal la mu ci bëgg waa rek moo di euh, li nga xam ne nag changement la yu significatif yoo xam ne rek mu ngi am ci sunu réew fii ci Sénégal mel ni nag moom daal événement yi nga xam ne moo fi doon am mu nekk lu modifier espace wala sax paysage sociopolitique bi ak économique bu Sénégal loolee daal mënees nañu jàpp ne moom la ca jublu bu fekkente ne nag li nga xam ne moo di détail spécifique yu événement yu 24 mars 2024 yooyu nekkul loo xam ne rek mentionné nañ ko bu baax a baax wala sax mentionné na ko bu baax a baax ci déclaration bi ni mel mënees nañu jàpp rek ne moom jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu jëm dénk lépp lu jëm ci wàllu dem ak euh, dikk euh, bi nga xam ne rek am na fii ci sunum réew di Sénégal euh, loolu nag mu mel ni rek mënees na koo jàppee ab changement d'air boo xam ne am na rek rawatina sax ci lu jëm ci respect ak reconnaissance yi nga xam ne nag dootul nekk loo xam ne dañu koy sàkku di ko yalwaan ci kenn waaye nag lu ñuy imposer la te la ko imposer rek mooy action ak transformation yi nga xam ne nag gouvernement bu Sénégal daal dina cay soobu moom El Malick Ndiaye mu ni rek ku bëgg fàttali citoyen sénégalais yi ak nag ñi nga xam ne ñoo di acteurs internationaux yi eh, que nag Sénégal dafa évoluer bu baax a baax li nga xam ne nag kon eh, moo di nek reconnaissance ak évolution boobu ci évolution boobu faaw rek ñu daal di koo xam waaye tamit interaction yi nga xam ne dina am ak suñuy collaboration nekk déclaration boo xam ne nag mënees nañu ko interpréter comme nag benn fierté nationale ak consolidation jëm ci effort ngir maintenir waaye tamit renforcer li nga xam ne mooy les progrès yi nga xam ne nag ñu ngi réaliser dooree ko ca date boobee muy 24 mars 2024 nga xam ne moom la ñu leen tabbee ci bopp réew ak léegi mu El Malick Ndiaye secrétaire national à la communication bu parti bi di passé waaye tamit ci geneen wàll di jëwriñ nga xam ne ci nguuruk président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci gouvernement bu kii Sonko di premier ministre bu Sénégal moom la lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk jërë ngeen